billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wasala abada ala allazi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadin wa ali wa sahbihi zoyna walil wali mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara ci weer bu tedd yi ñu nekk di ñaan suñu borom mu boole yi ci jaar yi nga xamante ni taxawaay yi ci def ci xeeti jaamu yàlla suñu borom dina ko nangu ginnaaw loolu comme ni ko suñu mbokk waxee seen jiili tomb bi ñu tànnoon ngir bëgg cee indi tuuti ak laay bi ak fàttalante mooy cër yi nga xamante ne suñu borom da ko dénk doomu aadama bi bu ñu wax ne sax ay cëram mu mel ni da ko këreel boppam wala da ko fàggul boppam waaye dañ koy tuddee cër yoo xamante ne suñu borom da ko dénk doomu aadama bi jëmm nag bu amee lu mu yëkkati dénk la bu doon sax nit la comme yow defe naa boo ko fonkee fonk lam la dénk war naa am noo ca taxawee ba lépp loo cay def doon loo xamante ne lu mu gërëm loola kon jullit bi li mu war a jëkk a xam moo di ne cër yi ko yàlla dénk bu tolli ci juróom-ñaari cër suñu boroom dafa am lu tax mu dénk ko mooy mu jëfandikoo ko ci lu neex yàlla bu ne lu neex yàlla nag mën nga caa dugal jaamu yàlla mën nga caa dugal ni ngay jëflante ak jaamu yàlla yi waaye tam ni ngay fàggoo ci sa dund lu la jëriñ ndax dundu jullit bi moom ñaari fàgguteef rek moom moo ci am muy fàggu lu lay jëriñ ci dundinu àdduna ak lu lay jëriñ ci dundinu àllaaxira ndax bu ñu jëlee benn aaya ci alquran boobu taxi fi ma aataka allahu daaral axirata wala tansa nasibaka min addunya ñu bari ci borom xam-xam yi dañuy wax ne boobu taxi fi ma aataka allahu daaral axirata boo ko boo ko firee rek ci am-am àdduna muy alal wala matière day gàtt waaye manees na koo firee ci lépp luñ mën a tudde xéwal tàmbalee ko ci cër yi nga xamante ne moom la suñu borom jox doomu aadama bi ndax xéwal ki koy wax foofu la tàmbalee suñu borom balaa moo jox nit ci wërsëg bu muy faj ay aajo da ko ñëkk a jox ay cër yoo xamante ne cër yooyu ci lay sukkandiku ngir lépp lu mu bëgg a fàggu ci àdduna mu mën koo fàggu moo xam lu koy jariñ la àdduna wala lu koy jariñ àllaaxira tomb yi nag wala tomb bi li tax ñu tànnoon ko ngir def ci ak laayante bi mooy weer bi ñu toll muy weer koor suñu boroom da ko wàcce farataal ko ci jullit ñi ci biir farataal boobu tam mu am lu mu leen ci diggaale muy ku ko taxawee man nga cee jële ak ragal yàlla man nga cee jële ak texe àdduna ak àllaaxira waaye nag kooka kan lay doon ndax buñ nee woor mooy nit ki di xiif rek ak di mar li ko tàmbalee fajar ba timis di jot buñ ko tënkee foofu day gàtt maanaam lool ci la bokk waaye nag du lool dong ndax ci ñuy jàngale fiq dañuy wax ne koor ñaari ponk la am ponk nag buñ ko waxee ci jàmm yàlla bu mën a doon mooy loo xamante ne bu manqué ci ca jëf-jëf jëf-jëf nut jëf-jëf matut loolu la ñu tudde ponk koor nag borom xam-xam yi nee na ñaari ponk la am benn bi mooy yéene ndax yéene moom niñ koy faral di waxee mooy miftaaxul ibadat maanaam mooy caabi ji ubbi bunti jaamu yàlla yépp jaamu yàlla boo jël rek booy lim ponk ya wala farata ya yéene mooy jiitu ñaareel ba mooy kii woor téye boppam téye jëmmam ci lépp lu mën a yàqu ko buntu boobu nag muy buntu lépp lu mën a yàqu ko dafa yaatu li ci gën a fes muy cosaan li mooy bàyyi lekk ak naan waaye tam lépp loo xamante ne lu jëm ci ay xeetu mooy yàlla tamit nit ki da ko war a bàyyi wala ndax mooy yàlla moom du sax loo xamante ne du nit ki war a def benn jamono la moom benn jamono boo xamante ne dañ naan occasion la pour nit ki mën cee mooy yàlla waaye nag niñ koy waxee rek day am ay jamono yoo xamante ne ci lay gën a dee doy waar doomu aadama di ci def ay bàkkaar weeru koor bi nag ci la bokk lu nit mën a wattu ci mooy yàlla rek bu duggee ci weeru koor da koo war a yokk comme que sàmm sa bopp ak téye sa bopp ba lépp lu yàq koor doo ca dugg loolu ak pomp la ci ci koor kon loolu li muy tekki mooy ku bëgg sa koor mat di ngay sellal sa yéene di bàyyee noonu lekk ak naan noonu nga war a sàmm itam cër yi la wa yàlla jox ba doo ci def lenn loo xamante ne lu neexul yàlla la cër yooyu mi ngi toll ci juróom-ñaar juróom-ñaari cër yoo xamante ne suñu borom daf koo dénk doomu aadama bi mu war koo wat rawatina ki nga xamante ne dañ koy tuddee aji woor Sëriñ Tuba radiyallahu anhu ci am bindam ñu fay wax ne bari waana kuy woorandoo am mbooloo mi te kooram ba amu jël du xiif amar maanaam coono ak xiif amar donc lay amee ca kooram loolu nag su ko sëñ bi waxee mooy koo xamante ne jàpp ne na koor moom mooy bañ a lekk bañ a naan rek su ba ngoon jot waaye lépp lu di ay caaxaan lépp lu di ay ak mooy yàlla jàpp ne ne mën na koo def wala lu mu néew néew mën naa am lu mu ci def bu paree njégul yàlla sëñ bi nag nee na kii woor bari waala lu muy xiif ak amar te du amee ca koor ga benn tuyaaba koor bu ba saa imin maal jamaa lay salawoo fii siwal ma jaaw sëñ bi leeralal ci am bindam ba tey koor mooy lan ci fasile boobu muy masaalikul jinam sëñ bi dafa wax ne koor bu ñu ko waxee dëgg-dëgg mooy bépp jël bu nekk ci doomu aadama bi jëmu ji woorloo ko comme ni muy woorloo biiram ci lépp loo xamante ne dafa mën a bijji nit ki jëmale ko ci lu neexul yàlla fa sawmu an yasuuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan fi sëri sëñ bi nee na loolu mooy koor lépp loo xamante ne mën naa wëlbati nit ki jëmale ko ci lu neexul yàlla juumloo ko wala mu def loo ko loo xamante ne dañ koy yeddi la rek nit ki dajaa war a protéger ay jëram téye ko ko du ci dàkk cër yooyu nag niñ ko waxee léegi mu toll ci juróom-ñaar sëñ jiili wax na ko ci tàmbali bi moo di ne li ñu war a njëkk a xam moo di ne cër yooyu xiiwal la bu yàlla jox jullit bi mu war koo jëfandikoo ci lu koy jay ci digganteem ak boroomam boobu faatu mu mën faa am na ko jariñ waaye tam ci digganteem ak mbindee dina ci àdduna ba mën a jariñ boppam tamit ci dundinu àdduna bi jariñ ñi mu nekkal bu ne juróom-ñaari cër yooyu mooy doomu aadama bi suñu boroom dénk na ko cër bu ñuy wax bët dénk ko cër bu ñuy wax nopp dénk ko cër bu ñuy wax lamañ dénk ko cër bu ñuy wax biir dénk ko cër bu ñuy wax am fay dénk ko cër bu ñuy wax loxo dénk ko cër bu ñuy wax ay tànk juróom-ñaar yooyu nag ñu ne yàlla sàkk ko rek mu mel ni benn matériel fowukaay boo xamante ne lu neex nit ki mu def ci déedéet daf ko ko jox ngir mu jëfandikoo ko ci lu koy jariñ ci misaal rek suñu boroom bu joxee doomu aadama bi ay bët li mu ci jublu mooy mu di ci xool lu ko mën a jëriñ ci diineem lu mel ni ubbi alxuraan tiim ko di jàng lu mel ni ubbi téere xadis di ko di jàng wala waxu nitu yàlla wala nga génn ci àll bi doxantu di romb mbindeef yàlla yi di leen xool di ci waaru ndax dañuy wax ne ak jullit dëgg su dee dox li muy romb ci barab yi muy jaar da ca war a yéemu ndax li woy ko arab ba waxoon te yonente bi ne lépp lu woykatu arab masa wax rek loolu moo ci gën a nekk dëgg woykatu arab ba lu mu waxoon wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid nee na bindee bi nekk jaatum bindee boo ci gis moo xam dafa rëy moo xam dafa ndaw moo xam melokaanam nu mu mel waaye am na jëm biir jëmmu ja luy wone ne yàlla kenn moo xam nag nit ki xam ko wala mu ñàkk koo xam waaye mbindeef ci kaw suuf yépp moo xam doomu aadama la moo xam bàyyi ma yi la moo xam xasaraat yi la moo xam garab yi la moo xam xeer yi la moo xam leneen ak leneen waaye li wér mooy amul lenn lu nekk ci àdduna bi lu dul ni kéemaanu yàlla maa nga ci boo xamante ne bu ko nit ki xoolee te seetantal ko mën na jaawaar jafe-jafe bi nag fi nekk mooy ndax nit ki dina romb nit ba dina romb jëmm ba am xelam dem ci xelaat ci jëmm ji ak ni ko yàlla bindee bu mën cee waaru waaw wax ji moom foofu la nekk ndax suñu borom lu mel ni boo demee ci sootul Ghaasiya bu demee ba naan afala yanzuruna ilal ibili kayfa xuliqat loola ñiy xool jiitam di seetantal bindin boo ko yàlla bind ak kéemaan gi nekk ci moom ak li ci yàlla dajal ñooña ñoo tax yàlla di wax mais ki nga xamante ne bu romboon gileem day moo romb aw xel ñooy ci moom kooku taxul yàlla di wax kon bët doomu aadama bi nit ki war na koo jëfandikoo ci xool ci mbindeef yàlla yi ngir waaroo ci waaye itam saa bu jógee di dox jëm ci barab bëtam yooyu ci lay sukkandiku ba mën a xam fan lay jaar ba àgg fu mu jëm jëm tey bu jóge woon tey xeexa jëm làmbaay defe naa bu dul woon ay bët yooyu gisee pour nga waaw dem ba dugg biir làmbaay te amoo benn jafe-jafe yaakaar naa dana dana xaw a day wax dana jafe dana jafe loolu kon bët yooyu ci la nit ki di tegtal tegtaloo ba fépp fu mu bëgg a dem rek bu mën faa dem te du am jafe-jafe waaye ci bët yooyu tam ci lay sukkandiku ba mën a gis lépp lu ko nar a lor moom mooy tandik moo xam day dox wala dafa toog ci benn benn barab bu dee nopp yee moom itam moom it cër la boo xamante ne xéewal la bu yàlla jox jullit bi mu war koo jëfandikoo ci lu neex yàlla lu mel ni lan lu mel ni déglu alxuraan déglu fu ñuy jànge alxuraan wisa xuriya alquran fastami'u lahu wa ansitu ko suñu borom waxee mooy fépp fu ñuy yëkkatee wax yàlla ku ko dégg rek da ngaa war a teewlu da ngaa war a xelawu waxuñu rek noppi waaye xelawu maanaam bàyyi xel la ñuy wax léeg-léeg nga dem ci wàcceb kaamil jéggal ma ci benn côté ci biir bi ñuy jàng kaamil bi da ngay dégg ñuy jàng di góorgóorlu loolu yëkkat seeni kàddu di jàng ñëpp di leen dégg waaye daanaka mën ngaa bañ a xam lañuy wax léeg-léeg ngir coowul ñenn ci ñi nga xamante ne jànguñu te nekk ci seen wet mën naa am ña ngay débat ci politique wala ña ngay werante ci xew-xew bu xewoon démb ba keroog kaamil bi di àgg te bu ñu àggee ci war a xatmu ñu ne déglu leen ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñaan mel ni kon léegi waxi waxi doomu aadama bi dafa gën a foor wax yàlla li ñu war a déglu kay mooy bu ñu jàng alxuraan mais bu ñuy xatmu sax ku mu ne mën ngaa wax ndax ak ñaan donc te nit a ko def ci nopp yooyu tam nit ki mën na ci dégloo ku koy wax ci lu jëm ci yàlla benn mu nekk digal ko lu baax lu mu war a def wala tere ko lu bon benn boroom xam-xam day wax ne ab jullit saa buy dox ci mbedd ba dégg yaa ayyuhal lazina amanu dafa war a taxaw déglu lu cay topp ndax defal moo ca war a topp wala wala bàyyi ñaar yooyu rek moo ci mën a topp bu dee defal la mu mu def bu dee lu mot bu dee bàyyi la mu bàyyi kon doomu aadama yooyu noppam war naa fexe ba di ci am yitte teewlu lu baax teewlu lu koy jëmale ci yàlla yonte bi sax day wax ci xadis ne na nga nekk koy jàng wala ngay jàngale wala ngay déglu ni ja ñi ñi wax ci xam-xam wala nga sopp leen waaye bu nekk juróomeel ba ndax boo nekkee juróomeel ba da ngay àll mooy koo xamante ne jàng du déglu koy wax ci xam-xam jàngalewut sopput sax ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu xam-xam di ko tasaare loolu moom yonente bi nee na ku koo xamante ne ci daraja boobu nga nga toll rek da ngay àll beneen bi mooy aw làmmañ aw làmmañ yi tamit doomu aadama bi mën na koo jëfandikoo ci lu koy jariñ ci jaamu yàlla ak lu koy jariñ ci àdduna bu dee ci lu koy jariñ ci jaamu yàlla mën na cee dënk rek alxuraan ji ñu waxoon léegi xool alxuraan ci say bët ni ci mën a ni ci nit ki mën a jëlee ay tuyaaba yu kawe kawe jàng nga tamit noonu la mel yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci benn xadis ne nit ki buy jàng alxuraan benn xaraf bu mu tudd rek suñu borom da ko cay bindal tuyaaba ci misaal boo ne alif lam mim zalikal kitaab laa rayba fiihi hudan lil muttaqin alif nga dañ la cee bind tuyaaba laam nga dañ la cee bind tuyaaba zaal nga kaaf ba noonu lañ ko toppee ba keroog saar nga di jeex ak lu mu rëy rëy bu dee kaamil ba tam noonu lañ ko toppee ba ba kaamil ba jeex mu dem ba ne même kii jàng sa alxuraan te di ca nam na bi ñaari tuyaaba lay am ndax day am tuyaabaay yitte yam am bay jàng alxuraan waaye day am dañ koy fayal jeneen tuyaabu yoo xamante ne coono ba mu cay naj ngir mën koo jàng moom moo ko waaye am la ma itam nit ki mën na koo jariñoo ci wax dëgg wax dëgg maanaam bokk na ci ñi gën a kawe kawe ay daraja yomal xew ñi nga xamante ne fu ñu fekkee dëgg te war koo wax rek wax ko waaye tamit digle lu baax ak tere lu bon ci aw làmmiñ dong lañ ko mën a defee mu ne su ko defee ci beneen cër xanaa budul bind waaye daam gis diggante bu yàqu nga war koo defar wax moo koy defar du jëm ci doxu mbokk it ñett yee ñiim ne mooy doxu mbokk wax ci la bokk beneen bi mooy biir biiru doomu aadama nga xamante ne ci lay dugal ñam wala am ndox mi nga xamante ne moom mooy tax ak dundam mën a continuer biir boobu tam nit yi mën na koo jëfandikoo ci ak jaamu yàlla ndax dañuy wax ne doomu aadama bi lépp mën naa doon ak jaamu yàlla nit dina tiim aw ñam sax di ko lekk ëpp tuyaaba ka taxaw jublu penk di julli su fekkente ne seeni yéene tolloowuñu ci misaal ki nga xamante ne dafa jóg dem di sàkku ji lu lew te lam jubli ci sàkku lu lew la mooy ngir saa bu waree taxaw jaamu yàlla lay nekk ci biiram mu di ko dëgëraloo ngir mën a def ak jaamu yàlla doon lu lew loola saa bu nekkee yittee nit ki lépp loo xamante ni dugal na ko ci biiram rek ak jaamu yàlla lañ koy jàpp beneen bi mooy am pay moom itam nit ki mën na ci amee ak jaamu yàlla ci bu ko sàmmee ndax yonente bi waxoon na ne nit de dina ànd ak soxnaam jële ci ay tuyaab saxaaba yi na ko loolu man la mën a nekke mu ne xanaa gisu leen ne su ko defoon ci fu fu dagan da cee jële bàkkaar kon moo tax su ko defee fu dagan da cee jële tuyaab bu dee loxo yee moom itam moom day yàlla lool ndax daanaka boo duggee ci wàllu liggéey rek bari na ci loo xamante ne loxo moo koy def booy demee ci wàllu jaamu yàlla tamit bari na ci loo xamante ne loxo moo koy def ci misaal rek ki nga xamante ne dafay jóg ngir bëgg lu mu terale boppam ngir bëgg lu mu fàggu ba saa bu soxlaa lu mu lekk am bu soxlaa lu mu naan am bu soxlaa da koy am la ëpp ci ay activité am bu ca yëngu loxo ya moom moo ci ëpp doole ci li gën a bari waaye ci xeetu jaamu yàlla tam boo demee ci jàpp boo demee ci julli yu ci bari bari da ngay gis ne bari na ci loo xamante ne loxo yi dina ci am solo lool bu ca amul rek mën naa am lu ci manqué waaye ci loxo yooyu tam nit ki mën na cee gis luy lore ci kaw yoon ci misaal mu jëli ko ko wala defar loo xamante ne doomu aadama yi dañ ciy mën a jëriñu ci seen dund benn mooy ay tànk moom itam xéewal la boo xamante ne suñu borom da koo defal nit ki mu man cee jëfandikoo ci li koy jëriñ ci jaamu yàlla bokk na ci dox dem ci barab bu jaamukaay yàlla ci misaal rek bu ñu nee julli ji ci jàkk dañuy wax ne ku la gën a sori jàkka ja rek moo lay wute yow ndax ki jàppee këram jàpp mu sel sol ay yére yu yiw dox jëm ci jàkka ja yonente bi nee na bépp jéego bu mu seqi ca dem nga ba këram muy wàññeeku dañ koy bindal tuyaw ba benn saxaaba bu ñuy tuddee Abdullah ibnu Maktum suñu borom da ko nattoo woon ay bëtam sëgg mu laajoon yonente bi mel ni ku koy xaw a juju ne ko ndax mën na maa toog comme mënumaa gis yonente bi daf ko ne ndax bu ñu noddee di nga ko dégg mu ne ko waaw mu ne ko kon déet julli si ba yonente bi dem sax ba ne sama xel de léeg-léeg dina nekk ci fekk ay nit ñu nekk ci seen kër te bu ñu noddee duñ julli si ma taal ko ci seen kaw yonente bi nee na léeg-léeg am seen daan dem ci loolu loolu li muy tekki mooy kon doomu aadama bi ay tànkam mën na koo jëfandikoo ci dox jëm ci ak jaamu yàlla dox dem jàngi alxuraan dox dem jàngi xam-xam dox dem liggéey yi fàggu lu lew dox dem defari diggante bu yàqu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nit ki mën na koo jëfandikoo ci loo xamante ne lu neex suñu borom waaye contraire ba tamit mën naa am mooy juróom-ñaari cër itam benn bu ci nekk rek nit ki mën na koo jëfandikoo ci loo xamante ne lu néewul yàlla la moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu boo demee ci Jawharatul Nafis day wax ne doomu aadama bi juróom-ñaari cër yi ko yàlla defal benn cër bu nekk dafa jàkkaarloo benn bunt ci bunti sawara yi ndax bunti sawara yi juróom-ñaar mu ne cër bu mu ci moyee yàlla te tuubut ba faatu boo légee ca bunt booba lay jaar dugg safara bu ko tuubut kon loolu moo tax doomu aadama war naa bàyyi xel lool ci cër yooyu ko yàlla defal boo jëlee bët ni mu mën a defee ak mooy yàlla moo tax suñu borom teel cee bàyyi loo xel jullit ñi ba boo demee ci lu mel ni suratu nuur muy wax ne qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow yonente bi na nga wax jullit yi góor yi ne leen nañuy damm seenu gis soo paree nga wëlbati ko wax julli di jigéen ñi ne leen dañuy damm seenu gis loolu lu ñu jublu mooy doomu aadama bokk na ci li ko gën a gaaw a defloo bàkkaar mooy xool lu xaram xool lu néewul yàlla loolu bokk loolu bokk na ci li ko yomb lool ba tax fu mu toll rek da ko war a da ko war a da ko war a bàyyi moo tax ñu wax ne nitu yàlla yi am na ci ñoo xamante ne buñ daan dox seen bët du jóge ci seen wewu tànk ngir bañ a xool lu ñu war a xool waaye ci loolu nit ki dañ koy tere mu xool awraay jàmm awra nag buñ ko waxee tekkiwuñ ne lu aju ci aw yaram kese la waaye lépp lu nit ki di nëbbu loo xamante ne bëggul mu feeñ moo xam lu ne ci këram la wala lu ne ci biiram néegam wala lu ne ci ab roxam wala lu ne ci ab magasin te bëggul ko ko gis loola doomu aadama bi dafa war a moytu di ko yëddoo ko yu xamtiku di ko bëgg a gis ndax su fexee ba gis ko te borom bëggutoon mu gis ko mën na jaaw jëlee bàkkaar bu réy moo tax suñu borom di wax ne waxal julli ñi ne leen nañuy damm seen gis mooy nañuy moytandiku di xool di yëkkati seen gis ba mën a xool loo xamante ne suñu borom daf koy xaraam boo ñëwee tam ci diggante boobu sax ba tey Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu boo demee ci xasida googu di nax ju xalaayil xaaj nga xamante ay teggin da cee jàngale man fay wax ne laysa sujaaun lasi yaxmi fawaarisahu yawma tiaani isaamal xalbu tasaayin lakin man gadda tarfan aw sana xadaman anil maasi fasaka xaalisu badal jàmbaar dëgg du koo xamante ne bu xeex jotee mu aar ay gawaram waaye jàmbaar dëgg mooy koo xamante ne dafa téye ay tànkam ci dox jëm ci lu xaraam waaye dafa téye itam ay bëtam ci xool loo xamante ne lu yàlla tere boo ñëwee ci noppi doomu aadama bi ni ñu waxoon léegi ne mën na koo jëfandikoo ci jaamu yàlla ak lu koy jëriñ ci dundam waaye noonu tam la ko mën a jëfandikoo ci luy indi ak mooy yàlla ci lu koy indil ay bakkaar ndax ay nopp doomu aadama bi mën na cee dégloo jëw ndax dañuy wax ne kii tudd nit di wax ci moom lu warut moo ki toog di ko déglu te wax ja neex ko ñooyal ci ay nopp doomu aadama bi mën na cee dégloo waxtaanu jàmbur te fekk bëggu bëggu ñëwoon mu dégg ko te yonent bi day wax ci ab xadis ne ku bàyyi xel ku xeral ci sam nopp waxi jàmbur joo xamante ne bëggutoon nga dégg ko bu yomal xiyaamee dinañ tàngal bitex sotti ko say nopp te loolu yaakaar naa bari waa na lool li ñuy wooyee nit ku dañ kumpa muy faral di yëngu ak di déglu ay ay ay ay ay waxi jàmbur loolu dañ koy teree ci ci sariyatul islam waaye ci nopp yooyu itam doomu aadama bi mën na ci dégg loolu lu amut ndax kii wax lu amut su fekkente ne amul kenn koy bàyyee xel ak di ko dëggal bu yàggee mën na ko bàyyi waaye su fekkente ne am na ñoo xamante ne bu ñu leen waxee donte du dëgg ñu gëm ko sax su boobaa loolu da koy encouragé ba loolu du jotaayal benn yoon saa bu nekk rek mën na koy def waaye boo jëlee itam làmmiñu doomu aadama bi moom itam ni mu mën a defee ak jaamu yàlla ak xëccal nit ki njariñ noonu la mën a defee ay bàkkaar te wax nañ ne sax làmmiñu doomu aadama bi mooy li nga xamante ne moo ëpp lu muy def bàkkaar ci cëri doomu aadama bi yépp ndax làmmiñ nit ki ci lay jéwee ci lay waxe lu amut ci lay rambaaje ci lay jaxase ay nit ci lay yàqe ak mbokk ci lay duurale nit ci lay xase nit ci lay saaga nit ak yeneen ak yeneen ba ci benn xadis boo xamante ne Muaz ibnu Jabal moom moo ñëwoon ci yonente bi ne ko dama bëgg nga dénk ma loo xamante ne su ma ko defee dinaa dugg àjjana sori safar yonente bi ne ko laaj nga lu réeré waaye nag mën naa yomb ci ko yàlla yombal waaye bi ko yonente bi limalee ba noppi diggante julli woor joxe asaka ak aj Màkka bi mu demee ba ca jeexintalu xadis bi nga xamante xadis bu gudd la wax leen bu bare bare la ci yonente bi wax waaye bi mu demee ba ci jeexintalu xadis bi dafa génne aw làmmiñam téye ji ne ko nag téyel ma sa lii téyel ma sa lii Muaz ne ko yow yonente bi ndax ñun li ñuy wax dañ ñu koy jàppe mu ne ko yow de toskare ñeel na la xanaa xamoo ne li ëpp ci ñuy dugg safara ëllëg yomal xiyam seen boobiitu wax moom moo leen fay dugal maanaam wax ju ñu wax ba sax ñuy nettali ne nit dana wax benn wax ngir reetaan lu ay nit kese bu yomal xiyaamee dana ci wëndeelu ci furi saware lu ma juróom-ñaari at soog a tàbbi ca ca ci ca suuf ci benn wax rek boo xamante ne da koo wax ngir reetaan lu ay nit wax lu amut ak yooyu moom waxaale wuñ ndax sëñ Tuubaa sax mi ngi wax ne nit ki bu waxee benn baat bu amut fen woowo day yéeg ba ci juróom-ñaari asamaan mu fëgg ne yàlla man la fen diw doomi diw ak diw yàlla nañ ko rëbb yàlla rëbb ko malaaka yi rëbb ko ba pare ñu bindal ko bàkkaar bu tonni jabalu waxut nga xamante ne am montagne la bu bu réy loolu bu jéggi day tax kon aw laa ma ñi tamit nit ki mën na cee defe bàkkaar waaye li gën a doy waaye bokk na ci yàq ak mbokk bari waa na fi tey mbokk bu yàq boo xamante ne wax dong moom moo ko yàq wala ñaar ñu war a ànd ñu fexe ba dugal seen diggante seytaane ba dootuñu laale te mën naa am jenn jëm dong moo wax ci diggante ba lu tax diggante ba ko yàq bu dee ñuy biiru doomu aadama tamit ni ki ni ko nit ki mën a jëfandikoo ci lekk ci lu leew ngir taxaw jaamu yàlla safaan ba tam noonu la mën a amee muy lekk lu xaram bari waa na ñoo xamante ne jàpp nañ ne nit ki bu xiifee moom lu mu mën a lekk bu biiral fees rek baax waaye loolu loolu wërta nekk ji koy jullit ak jullit dafa war a fekk fexe ba lépp lu muy dugal ci biiram doon loo xamante ne lu lu lu lu leew la doon loo xamante ne lu yàlla gërëm koo tax suñu borom tabaraka wa taala di wax ne na ngeen lekk ci ci wërsëgu yàlla yi waaye wërsëg wi suñu borom di wax mooy loo xamante ne dafa lew ci sariyatul islam loolu mooy loo xamante ne bu nit ki lekkee mu jëriñ waaye lépp lu nit ki lekk ci biiram ak lu mu ndaw ndaw su fekkente ne lewut dañ ko jël bindal ay bàkkaar te yonent bi mi ngi wax ne doomu aadama bi saa bu dugalee ci biiram lu lewut ba fee ñam woowa di rees jaamu yàlla bu mu def yàlla du ko nangu kon loolu kon mbokk yi lu jar a bàyyi xel benn bi mooy am paye bi mën na koo jëfandikoo ci ak ma yàlla li ñuy tuddee njaaloo wala lu nuroo moom te bari na lool ci jamono ba yenn ci borom xam-xam yi sax dañuy wax ne bàkkaar bu nekk nit ki mën na koo def tuub góorgóorlu ba amaat ay leer ba mu des lu jëm ci wàllu njaalo njaaloo moom borom xam-xam yi nee nañ su ko nit ki xasee def moom noppi naa mu cër ci yàlla mën naa góorgóorlu nag ba bokk ci ñi nga xamante ne ëllëg mën nañu am ay tuyaaba waaye doon ci borom cër yi moom nee nañ dootu ko mën di am waaye boo ñëwee ci loxo itam noonu ci ay loxo ci la nit ki mën a sukkandiku ngir lor nit ci lu bëree bare bëri moo xam ci xeer la moo xam ci jël luy lore teg ko ci kanam nit ki la wala ci wetu këram wala xeet demee noonu boo jëlee ci tànk yee tamit bari waana lu ci nit ki mën a def ci ak mooy yàlla dox jëm ci loo xamante ne lu yàlla gërëm dox jëm ci ndaje moo xamante ne ak mooy yàlla dong fa nekk wala ay caaxaan dong fa nekk yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ne lu ci nekk rek nit ki mën na caa dugg ba jële ci ay bàkkaar yu réeréeré te du ca bàyyi rek moo tax suñu borom di wax ci alxuraan ne jaamu yàlla yi dëgg de ñi nga xamante ne seeni gëm yàlla wér na mooy ñi nga xamante ne fu ñu dégg ay caaxaan rek won ko ginnaaw wa isa sami'u lagwa a'radu anhu ak wallazina hum ani lagwi mu'ridun ak itam lu mel ni wallazina la yashhaduna zuura wa isa marru bil lagwi marru kiram mooy am na ci jaamu yàlla yi ñoo xamante ne duñu fekke fenn fu ñuy waxee lu bon fenn fu ñuy waxee ak mooy yàlla ñu toog di ko dégg moom su mënta ñàkk soo xasee topp ci seenam nopp tamit dañuy jaar daal di jóg dem bu dee jataay bu ñu mën a jóge dem duñu nangoo tam romb ay jaaxal mukk di ca di ca bàyyi xel ndax nee nañ nit dina dox sax romb ci barab bu ñuy waxee ay jaaxal mu ne tekk ak diir ngir bàyyi xel ci lañuy wax rek yàlla bindal ko bakkat ci diir bu néew kon loolu nit ki da cee war a bàyyi xel bu baax a baax ba cër yooyu mu di ko ji ma wattandiku fu mu toll ba tey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne noppi doomu aadama bi war naa fexe ba wattandiku ba du ci déglu loo xamante ne lu mel ni jëw la ndax ñu ne ki nga xamante ne dafa toog di tudd nit di wax ci moom loo xamante ne lu jaaduwul la ndax bu ñu nee jëw rek mooy tudd nit wax ci moom loo xamante ne bu ko déggoon mu naq rek loolu nag koo xamante ne toog nga ci jotaay bu bàyyee ko rek day mel ni yow ak moom yéen yéen a tolloo yéen a tolloo wàccuwaay yéen a tolloo ak suufewaay bu fekkante ne mën nañu ko waxee noonu ba tey làmmañu doomu aadama bi suñu borom mi koy sant mu wattu ko naka la koy wattoo mooy mu bàyyi xel ne lépp lu muy wax rek suñu borom mi ngi koy bàyyi xel maa yalfizu min xawlin illa ladayhi raqibun atid mooy amul kenn koo xamante ne di nga toog ci ab jotaay moo xam da ngaa wéet wala da ngaa wéetaliku wax benn wax lu dul ni am na ñaari malaaka yu nekk ci say mbagg yoo xamante ne ña ngay déglu la ngay wax waaye tamit di ko bind moo tax nit ki lépp lu muy génne ceew la ma rek war naa setantal ba xam ndax lu war a génn la wala déet moo tax benn benn xalaatkat day wax ne am na ñaar yoo xamante ne ci jëmmi doomu aadama balaa ko nit kee génne rek war naa xaar ba gis lu ko jar ndax dañuy feeñal li nëbbu ci jëmmi doomu aadama bi moo tax mooy wax ak ay rongañ maanaam magum jëm war naa fexe ba balaa moo jooy gis lu jar a jooy soo ko jooy waaye balaa moo wax itam war naa fexe ba gis lu jar a wax mu mu mu soog a wax li ñuy wax nag ne Serigne Abdou Lahad Mbacké radiyallahu anhu doon na wax ne li yàq penc mi mooy koo xamante ne dafa xamul dara la ba pare di wax parce que wax moom bu jotee rek ci xam ca lañu war a moo xam nag domaine bu mu mën a doon nañu xool ñi ca spécialisé ñu bàyyi leen ñu wax ci loolu te boo seetloo doomu aadama yi li ñu gën a mën mooy xew-xew bu am xew-xew bu am bu bees rek ñëpp ay dañ ci bëgg nekk ay spécialiste te fekk demeewul noonu am nañu jaam xam-xam ak ñu jaam xam-xam moo tax mu ne bokk na ci li yàq penc bi ñi nga xamante ne dañuy wax te lañuy wax amuñu ci dara ak ñi nga xamante ne dañuy wax lañu xaman ba mu jeex ñu continuer di wax ñaar yooyu benn baaxu ci doomu aadama bi dafa war a fexe ba lépp lu muy wax rek doon loo xamante ne lu ko amal njariñ la wala lu ko amal njariñ ñi ko wër waaye wër ta wax loo xamante ne day lor nit wala loo xamante ne même bu loolu nit itam amul njariñ moo tax benn waxkat di wax ne am na ñoo xamante ne bu ñu naree noppi jaar nañu fay leen ngir ñu wax waaye am na ñoo xamante ne tamit bu ñu naree wax jaar nañu fay leen ngir ñu bañ a wax ba tey ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi fay wax ne doomu aadama bi de dina wax benn wax boo xamante ne lim ci jublu rek mooy yëkkati ay darajaam yëkkati ay darajaam wala mu yëkkati darajaay keneen waaye nag sukkandikuwu ko ci dëgg maanaam da ko wax rek ngir tàgg ni comme liñ ko xamee rek léeg-léeg muy am ci xew yi wala ci ndaje yi léeg-léeg nit di wax ci nit loo xamante ne bu wéetan xelaat ca lam wax digganteem ak yàlla dana xam ne dugal na ca wax ja loo xamante ne bokku ci loolu nag yonente bi ne ne képp ku ko def rek na nga xam ne am nga tëkkooy suñu borom kon moo tax ndaje yi ak jotaay yi war nañuy bàyyi xel lool ni ñuy waxtaane ak ni ñuy jëlee kàddu bari waa na ci ndaje yi ndaje maanaam jëli façon jëli kàddu yoo xamante ne léeg-léeg yow ma toog ca jotaay ba tey bàyyi xel la ñuy wax li nga xam ne léeg-léeg nit jël kàddu te jëltoon mu jël kàddu wala jël na kàddu waaye même bu waroon a jël kàddu tam na mu waxe wóoru ko na wax ci loo xamante ne xañ na day wuuteeg lu yàlla gërëm wala day wuuteeg lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu di wax ne ci wàllu rek aw làmmiñ ak nuñ ko war a wattoo muy wax ne nit ki dafa war a fexe ba aw làmmiñam mu tàppoo ci sant yàlla sant yàlla tudd yàlla zikkar julli ci yonente bi Sëriñ Tuubaa nee na doomu aadama bi loolu rek la war a fexe ba di ko def ci aw làmmiñam wëlis leneen laazim sukurallahi bil lisaani wa qaabilil ixsaana bil ixsaani mooy na nga tàqoo ak di sant yàlla ci sa làmmañ wax alhamdulilah alhamdulilah nag yoo xamante ni day ànd ak yéene day ànd ak di sellal say jëf ak say wax waaye itam lépp lu la nit ki defal ci lu baax tam na nga fexey ba fay ko lu baax lu mel noonu waxaat tamit ne adim tilaawatul kitaab yi muksira bihi salaatan ma salaamin kasura na nga fexey ba sa làmmañ nga di ci bari looy jàng alxuraan di ci bari looy tudd yàlla ndax loolu boo ko dee def rek loolu mën naa tax nga mën a wattu saw làmmiñ parce que suñu borom moo bind doomu aadama ci anam goo xamante ne ay cëram su ko jëfandikoo wut ci lu neex yàlla rek dina ko jëfandikoo ci leneen waaye su ko occupé ci loo xamante ne lu neex yàlla la loolu mën na ko dimbali ba du ci tala def loo xamante ni lu neexul yàlla ci misaal koo xamante ni fu mu toll mi ngi jàng alxuraan wala fu mu toll mi ngi jàng xadis wala fu mu toll mi ngi jàng xësit kooku du am jotu toog ci ab jataay di dugg ci loo xamante ni loolu yoonam nekkul garam place yi ngay faral di gis ak jataay yi ngay faral di gis yoo xamante ne yàlla taxu koo jub ña ca gën a bari du ñu doon yoo xamante ne ay jàngate alxuraan lañ daanaka li ci gën a bari ñu ñu ñu ñu alxuraan yi teelut lay doon wala ñu xam-xam yi teelut waaye koo xamante ne bis bu nekk rek jàpp na ne war naa mën a jàng nangam ci alxuraan wala mën naa war naa mën a jàng nangam ci xasida ci loo xamante ne dañu def diir bu yàgg kooku du am jotu toog di wax ci loo xamante ne lu ko wóorul la wala muy dugg ci loo xamante ne lu luñ ko mën a yeddel ba tey nit ki tam bu bëggee wattu biiram mooy day fexey ba bu jógee ngir fàggu mu bàyyee xel ne ab jullit amul droit fàggu lu dul lu dul lu lew yonente bi wax na ci benn xadis ne doomu aadama bi yomal xiyam balaa moo jéggi dees na ko laaj juróom dees na ko laaj ak ndawam ci lu mu ko paas dinañ ko laaj ak jotam ci lu mu ko paas dinañ ko laaj wér gi ko yàlla joxoon ci lu mu ko paas dinañ ko laaj ak dundam ci lu mu ko jeexal waaye bi mu ñëwee ci wàllu wàllu am-am moom dafa wax ne bu dee am-am moom dinañ ko laaj fu mu ko jëlee ak fu mu ko def léegi nag nit ki bu jógee di sàkku lu lew da ca war a bàyyi xel saa bu demee ba soxla lu mu dugal ci biiram ndax lépp lu muy dugal ci biiram rek dafa war a nekk loo xamante ne lu lew la doon dafa war a nekk loo xamante ne lu dagal moo tax suñu borom di wax ci alxuraan ne yaa ayyuha allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum waskurullaha in kuntum iyyahu ta'budun yéen ñi nga xamante ne da ngeen a gëm yàlla na ngeen di lekk lu teey na ngeen di lekk lu lew ci li nga xamante ne dañ leen koo wërsëgal su ko defee loolu su ngeen ko defee day tekki ne kon yéen a ngi sant yàlla te sant yàlla boobu li muy wone mooy koo xamante ne léppam da koo jubali ci jaamu yàlla waxaat beneen ne wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatili na ngeen fexey ba seen alal yi dox ci seen diggante bu leen ko lekkante ci lu teguwut ci dëgg ci lu teguwut ci aw yoon moo xam ci diggante jënd ak jaay la moo xam ci leblante la moo xam ci beneen jëflante bu mu mën a doon waaye dañoo bëgg nit ki lépp lu muy jële ci nit ci wàllu alal di ko jëfandikoo rek na nekk loo xamante ne nam ca jote lu dagan la ab ab jullit ci misaal amul droit di jaay marchandise moo xamante ne ka koy jënd mën na caa loroo wala mu koy jaay ci prix boo xamante ne day wuute fu mu ko war a jaay wala muy jaay loo xamante ne am na ayib te leerul ayib ja nekk ca biir ak yeneen ak yeneen ak yeneen ndax loolu su ko defee rek li muy tekki mooy kon lam cay amee du mën a dagal te bu dagal bu ko lekkee wala mu lekk lu ko ak njabootam loolu mën na leen a jural ay bisiku ba tey suñu borom di wax ne allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yataxabbatuhu shaytan min al mas zalika bi annahum qalu innama al bay'u mislu riba wa xala allahu al bay'a wa xarama riba nee na bari waa na ci nit ñi ñoo xamante ne lekk riba ak lekk lu leew lañu yemale maanaam jàpp nañ ne riba lekk ko amul benn dansé bu ci nekk te suñu borom nee na kiy lekk riba dafa mel ni koo xamante ne seytaane moo téye moo jàpp ci loxoom rek di ko wëndeel naa kon dugal fii dugal génnal fii dugal fii génnal fii nga xamante ne moom doo xam fu muy teg tànkam te jëmm yooyu mooy ñi nga xamante ne dañoo gëm ne maanaam jënd ak jaay ni ko jullit bi sañee jëfandikoo ci lu dagal noonu la ko sañee jëfandikoo tam ci wàllu riba suñu borom nag ne yëf yi demewul noonu waaye suñu borom am na lu mu daganal ci xeeti njaay waaye bu dee riba nag moom daf ko haram jënd ak jaay suñu borom daganal na ko nit ki mën naa dem jëndi marchandise su fekkente ne lu ab jullit sañee sañee jaay la exposé ko jaay ko ci anam goo xamante ne dëppoo na ak lay dox ci réew ma su boobaa lu mu ci jëlee rek loolu mën naa dagal waaye nag su ca dugalee loo xamante ne lu ca bokkul la rek loola day dugg ci wàllum riba ba day ci xadis yonente bi mi ngi fay leeral danger boo xamante ne nekk na ci lekk riba nga xamante ne da ko dugal ci juróom-ñaari bakkaar yoo xamante ne mu bexaat la leen tudde mu bexaat nu mu ko waxee mooy bàkkaar boo xamante ne mën naa alak nit ki mën naa sabab nit ki dugg sawar mën naa sabab bépp misiba dal nit ki bu ëllëgee amal xew mu jël riba dugal ko ci juróom-ñaari bàkkaar yooyu mooy ijtanibu as-sab'al mubiqat ci xadis boo xam ne Abu Hurayra moom moo ko solo saxaaba yi laaj ko ne ko juróom-ñaar yooyu ngay wax mooy yan yow yonente bi mu ne mooy bokkaale ci jiit mooy bokkaale ndax dañuy wax ne bokkaale mooy bàkkaar bi gën a rëy ci xeeti bàkkaar yi ñaareel ba mooy jabar moo xam ki koy def la wala ki dem ci ab jabar di ko def la wala mu di ko seetloo ñetteel ba mooy rey bakkan ci lu dul yoon ñeenteel ba mooy lekk riba juróomeel ba mooy lekk alali jirim lekk alali jirim juróom-benneel ba mooy toolu xareb islam jullit bi soobu ja ba pare mu metti mu daw juróom-ñaareel ba nag mooy xas jigéeni jullit yu sangewu joo xamante ne xamul lu bon foofu li ñu ci bëgg a wax rek mooy maanaam li tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam jël lekk riba dugal ko ci biir juróom-ñaar yi ci diggante diggante bokkaale ak jabar ak ray bakkan ak lu mel ni wone ginnaaw ci bis boo xamante ne toolu xareb islam kon loolu li muy wone mooy lekk riba lu rëy rëy rëy la loo xamante ne jullit bu nekk war na cee bàyyi xel ba saa bu nekk mu di ko wattandiku yonente bi wax na ci ab xadis ne doomu aadama bi dana tilim lool ci aw melokaan la mu sol xaw a woyof lool bopp ba fënd lool yaram wa doy waar ba ku ko gis jàpp ne kii dafa tëdd àdduna jàpp ne kii dafa jox léppam yàlla waaye bu toogee tàllal ay loxoom di ñaan yàlla suñu borom du ko nangu ndax la mu sol dafa xaram la muy lekk tam dafa xaram kon kooko nan la mën a ñaane yàlla yàlla nangu dafa bokk na ci sarti ñaan yàlla mu nangu mooy ngay lekk lu rek moo tax Serigne Touba radiyallahu anhu di wax ne xam-xam li muy am am njariñ ak jaamu yàlla mënta amal jullit bi njariñ li fekk mi ngi lekk lu xaram te loolu sang yi nga xamante ne ñoom la ñuy topp seen ginnaaw ñoom ñoo ko wax te ñooñu lu ñu wax lañ la yanfa'u al-ilmu wala al-ibada bil akli lil xaraami inda sada mu waxaat feneen ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xëy waxat maanaam sàkku lu lew farata la ni nga xamante ne julli ak woor ak joxe asaka yi ci aju noonu ñu nekk farata noonu la sàkku lu lew tamit nekk farata ci jullit moo tax muy waxaat ne laa tudxilil xaraama fil batni wala maa fii subuhatun balil xaq bi la nee na na nga fexey ba sa biir bi bul ci dugal lenn lu xaraam waaye bul ci dugal sax loo xamante ne dafa lënt ndax lu lënt mooy loo xamante ne doonte wóoru la ne la dafa xaraam waaye wóoru la tamit ne dafa dagal maanaam daal am ngay sikki sàkka ci ndax dafa dagal wala ñàkkute dagal su boobaa sëñ bi nee na loola na nga ko na nga ko na nga ko moytandiku ba doo ko dugal ci sa biir mu ne fa fa kul xalaalan in arata an tuti allah wa rasula yaa xasal muti nee na na nga fexey bay lekk lu dagal su fekkente ne da ngaa nam ma topp yàlla akub yonentam ku bëgg a topp yàlla akub yonentam te topp ga saf leen topp ga yitteel leen da ngay fexey bay lekk lu dagan lu jiitu ngay jóg di def ak ak jaamu yàlla wala nga lu jiitu ngay jóg di roy yonente bi wala ngay xeeñtu suñu sunam boo ñëwee tam ci wàllu wàllu sàmm am pëy loolu tam am na ci ay aayaat yoo xamante ne suñuy boroom wax na ko ngir doomu aadama yi bàyyi xel man cee moytandikoo lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu njaal mooy lu mel ni laa taqrabu zina suñu boroom dañuy wax ne lépp lu muy tere bu waxee ne bàyyi leen ko rek loola donte lu lu lu diis la waaye nag su ne bu leen ko jege moom day wone ne loola moo gën a dee doy waar bu leen lu mel ni njaal nag néewut bàyyi leen ko waxul ne tamit bu leen ko def waaye dañ ne bu leen ko jege ndax boo ko jegee rek mën nga caa tàgg laa taqrabu zina innahu kaana faaxisata wa saa sabila bu leen jege njaaloo ndax njaaloo kat aw ñaawteef bu réy réy la faaxisa bu ñu ko waxee rek mooy ñaawteef bu réy ba jéggi dayo waaye daw aw yoon la wu bon ba loo xam ne ku ca sóobu rek mën ngaa bañ a tee dëpp mën na laa yóbbe ba nga dugg safar sali ayaasu billah ba tey suñu borom bi muy tàgg ci suratul mu'minin ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñooy texe ba liggéey amul xiyam muy xadaaf laxal mu'minun bi muy lim jikko ya laata muy jeexal bokk na ja wallazina hum li furujihim xaafisun mooy ñi nga xamante ne dañuy dañoo ragal yàlla di taxawee julli di joxe asak waaye nag di sàmm seenum pëy ba duñ ca def lu neexul yàlla lu ci seeni soxla ndax loola moom dagal na leen te buñ koy def sa xañ na tuyaaba lañ ci jël moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ci lu lu xaw a jege firi aaya boobu wala lu dëppook aaya boobu muy wax ne la taqrabu zina wala al muqaddimat li wëj fi baaxin xuruxu muazzamat bu leen jege njaalo waaye muqaddimaatu zina sax bu leen ko jege muqaddimaatu zina nag buñ ko waxee mooy loo xamante ne mooy jiitu njaalo su ko am su boobaa même yooyee sax dafa wax ne nañ na ko jullit bi moytandiku ndax su ko moytandikuwut mën na koo jëmale ci ci mu dugg ci ci ci ak mu yàlla dema dem bay wax ne jigéen boo bëggee mucc ci moom barab bu mu nekk barab bu dend ak barab boobu bul ko jege waxul ne barab bu jigéen nekk bul ko jege waaye barab bu mu nekk bu de barab bu dend ak barab boobu bul ko jege inna salaamata min hindin wa jaaratiha an la taxulla bi waalin xawla waadiha kon loolu li muy tekki mooy njaalo moom itam ci bàkkaar yi gën a yële bokk waaye bàkkaar yi doomu aadama gën a gaaw a tàbbi ci la bokk ba tax nit yàlla yi ñoom dañ ko doon faral di bàyyi xel bu baax a baax a baax ba tey boo ñëwee tamit ci lu mel ni tànk ci doomu aadama bi ni ñu waxee woon ne nit ki mën na cee jëfandikoo ci jaamu yàlla wala dox ci lu koy jariñ ci àdduna kalaaxira waaye mën na cee def tam ak mooy yàlla muy dox jëm ci barab boo xamante ne mën na fa jële ay bakkaar moo tax doomu aadama bi moom itam war di sàmm boppam ba ay tànkam mu téye ko ba du dox jëm ci loo xamante ne yàlla di dellu moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu di wax ne la tamsi bir li ji lay ni lil xaraam mooy sa ñaari tànk yi la yàlla dénk na nga fexe yi ba bul ci dox jëm ci lu xaraam bal bi himastain alal alal maraali waaye li la war mooy sa ñaari tànk yooyu la suñu borom jox nga fexey ba jëfandikoo ko ci loo xamante ne lu mënta ñàkk la muy sàkk loo xamante ne loo soxla la loo xamante ne lu mënta ñàkk la ci sa dund wala sàkk loo xamante ne lu lay jariñ la sa diggante ak sa borom waxaat tamit ne wam si li ajili xaajate mooy jullit bi saa buy dox rek na fexey ba la ko tax a jóg doon doon yitte waaye ab jullit amul droit toog rek ba mu neex ko mu daan ne xaaral ma dem bërëb sàngam nga xamante ne léeg-léeg sax nga gis ku jóg dem seeti nit ci anam goo xamante ne xañ ne ka muy fekk sax mën naa am fekk si nga gënalu ko ndax mën naa ñëw fekk ko mu jàpp mën naa ñëw fekk ko mu nekk ci nangam ilaa xëri wala nga jekki-jekki ne xaaral ma diw ma jóg dem seeti diw ñoom te mën naa am diw ñoom ñooña ci ab grand place lañ nekk boo xamante ne xañ na lañ fay nekkee diir bañ fay toog ba kaw ñu fay jógee mën naa bañ a neex lu mën naa bañ a nekk lu neex yàlla su boobaa boo doxee jëm ci rek day mel ni yaa ngi xëccal sa bopp ay bakkaar kon moo tax doomu aadama bi war di fexe di protéger boppam fu mu toll ci téye ay tànkam ba du dox jëm ci loo xamante ne lu xaram li borom aaxiru zaman di wax ne wa zamanu lusumi lil lil buyuti hasa zamanu zamanu sukuti wa zamanu lusumi lil buyuti loolu lim ci jublu mooy boo demee ba jamono yàqute yi ëpp la baax la cay tane mooy nga téye sa làmmiñ bañ di wax lu bari waaye tamit soo ko manee bu dul lu mënta ñàkk nga bañ di génn lu bari mooy taxoog sa kër nga xamante ne saa booy génn di dox ci mbedd ñu di la seen rek day fekk ne farata moom moo la tax ñu bari na ci biir yàlla yi ñoo xamante ne du ñu jóg mukk di dox ci mbedd wala ci àll wala ci dëkk ay nit di leen gis lu dul ni fa ñu jëm yitte moom moo leen ko yóbbu ba boo xoolee sax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu bi muy leeral murit li ñu tuddee irada mooy lan dafa wax ne isil muridu laa yuridu abada ghayra rida rahmani haythu qasada maanaam murid dëgg mooy koo xamante ne fu mu jublu rek ngërëmal yàlla dafay sàkk ngërëmal yàlla dafay sàkk waaye am murid du koo xamante ne lu lu yëngu rek maa nga ci ci misaal da ngay gis koo xamante ne fu ñu wootee njàngum alxuraan mu dem bu ñu wootee ay njàng mu dem bu ñu wootee ab conférence mu dem waaye tam fu làmb bu dëggee mu dem bu ab concert musique seen sànkam amee mu dem bu fekkente ne dafa am benn politicien bu war a def am meeting wala mu war a def benn présentation ci béréb sànkam tamit mu dem su boobaa nag kooko deesu xam fu ñu koy féete mooy léeg-léeg benn waaye doon wax ne léeg-léeg da ngay dugg ci ab oto gis sëfoor ba taf ci kanam oto bi ay photo yu sëri ak ay photo yu musicien ak ay photo yu mbëri làmb mu ne nag su boobaa doo xam moom kan la ci bëgg parce que ab xol moom nekkul loo xamante ne mënees na ko séddale il faut da ngay tànn leen rek bàyyi la ci des kon jullit bi war naa fexe ba ay tànkam fépp fu mu ci dox di jëm rek mu doon koo xamante ne yitte moom moo ko tax a jóg waaye bu mu doon loo xamante ne ay caaxaan moom moo ko tax a jóg su dee ni loxo yi tamit doomu aadama bi war naa fexe yi ba wattu ko nu mu koy wattoo mooy li sëñ bi wax rek radiyallahu anhu fa bil yadayni yaa murida yaa murida tanib aw fa bil yadayni yaa murida taniba tanaawulan bihi takunu musliba mooy sa ñaari loxo yi na nga fexe yi ba wattandiku jël ci loo xamante ne wala nga laal ci loo xamante ne mën na laa indil bakkaar am doomu aadama bi amut droit ci ay loxoom mu laal ci loo xamante ne loo xamante ne mën na cee jële bakkaar moo xam nag laal nga lu mën a doon laal luñ tere wala jëlee fi jàmbur wala lu nuroog lool ba ba tey mu waxaat ne sab loxo tam na nga wottandiku ba doo ci bind lu xaram ndax ni ñuy teree wax lu xaram noonu la ñuy teree nit ki tam mu bind ci ab loxoom loo xamante ne dañ ko xaram wala taxutta aw tamusa ma yakun muharraman fi sariha diinal makin na nga fexe ba sab loxo bul ci bind wala nga laal ci loo xamante ne dañ koo araamal ci sariha bi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ñu ko indi waaye wa bihi masta'in ala ta'at nee na sa ñaari loxo kay li nga ci war a jëfe mooy dimbandikoo ko ci jaamu yàlla ci bépp jamono ak sépp saa su mën a doon ndax dañuy wax ne jullit bi ay waxtoom lépp wurus la wu gànjar woo xamante ne saa bu nekk rek da ko war di profité di ko jëfandikoo mooy war koo bàyyi mu neen gis nañ sax ci tomb yooyu Serigne Touba doon def nee nañ bis mosoon naa wax ne ak jullit de wërta amul jot bu naree amul jot sax jaar na mu xool ci suuf si fu ci sutante mu jóg dem maas def moo gën muy toog di amul jot ndax nit boo amee jot bu defut daal rek il faut il faut am xelam jëm ci jëm jëm ci def loo xamante ne néewul yàlla waaye cëri doomu aadama bi moom mënta bit li nga xamante ne am xelam mënta bit doomu aadama bi fu mu toll rek bu deful dara il faut am xelam xalaat benn mu xalaat lu baax wala mu xalaat lu bon mais cëri yi ko yàlla dénk tamit mënta toog diir bu yàgg te deful dara bu dee bët yee mënta toog benn diir bi soo gëmmentuwul te xoolut su dee xool nag benn mu xool lu araam wala mu xool lu dara bu dee nopp yi noonu bu dee làngo yi noonu bu dee loxo yi noonu ba cëri yàgg kon moo tax nit ki di war di bàyyi xel ne ay loxoom amul droit def ci lenn loo xamante ne day lor bi moo tax yonent bi di wax ci benn xadis ne jullit dëgg mooy koo xamante ne aw làmmiñam du ci lor nit waaye ab loxoom mi tamit du ci lor nit moo tax kon ñu war a bàyyi xel bu baax a baax ci ne suñuy loxo tam war nañ di ko protéger ba duñ ci lor benn doomu aadama bu mën a doon war nañoo fexe ba tam lépp luñ ci def doon loo xamante ne ni ñuy jariñ lii ñu wax lépp nag dañuy wax ne su fekkente ne bëgg nañ koo tënk wala bëgg nañ koo fàggu dañuy fexe ba xol bi ñu defal ndax dañuy wax ne xol moom mooy buurub cër yi nu mu mel rek noonu la cër yi di mel sëñ Tuba leeral ko ci am mbindam alxalbu kal maliki fil a'da'i mahma yamil tamil ma maqtiday maanaam xol day mel ni mooy moom mooy buur cër yi day mel ni moom mooy président cër yi day mel ni moom mooy seen njiit day mel ni moom mooy seen jëwriñ ndax nee na ab xol fu mu jeng jëm rek cëri doomu aadama bi yépp fa lay jeng jëm am boo seetloo nit ki lu lu lu gën a nekk tey ci ci ca xolam boo seetloo bu dee du jëm ci wàllu seetaan loolu lay bëgg di seetaan kër goo dem fi mu ne télé ba programme ya ya cay daw mën ngaa xam kenn ku nekk ci waa kër ga la ko ci intéressé ak la ko ci intéressé wut ndax lu ko jaral mu dem ca télé ba di ca def benn temps bi rek di ko xool ak ay bëtam day day wone ne loolu mu nekk ci xolam loolu la bëgg di gis bu fekkente ne tamit ay noppam la matuwaay yi léegi bari na bariwaa na lu la nit di romb nga am son booy dégg ci ab téléphone am képp koo miineel muy déglu nangam moo xam alxuraan la wala xasida wala nangam xamal ne loolu moo nekk ci ab xolam bu dee wax itam boo seetloo doomu aadama bi lu muy faral di waxtaane loolu mu nekk ci ab xolam bariwaa na lu nit di woote woote man nangam la man nangam la waaye su ko waxee tam balaa ngay gëm la wax del bàyyi xel rek ci moom li muy faral di bëgg di di bëgg di waxtaan ndax nit dina ci am xolam parce que toujours loolu lay bëgg di waxtaan nga xamante ne jataay bu mu ko fekk sax bu sañoon du ko jóg nga xamante ne léeg-léeg di nga gis ko day toog ci ab jataay sax ñu tàmbali waxtaan mais ku njëkk a jóg ba jataay ba nar a yàqu sax daf lay mere te mën naa am la ñuy wax du dara wala mën naa am la ñuy wax ak mooy yàlla la mais loolu da ko intéressé boo seetloo tam nit ki tam li nekk ci ab xolam ñaare loolu moom moo koy poussé ba saabu jëlee ay tànkam di ko jëfandikoo di jëm ci barab sàngam rek day fekk ne la mu fay la la ko tax di jóg ca barab booba day dafa nekkoon yitte joo xamante ne dafa saxoon ci ab xolam démb ak bët gi démb moo tax ñu ne doomu aadama bi ab xolam moom la war a njëkk a defar moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne am na ci jëmmi doomu aadama bi benn dogu yàpp boo xamante ne su baaxee jëmmi doomu aadama bi yépp mën naa baax waaye su yàqoo tam jëmmi doomu aadama bi yépp mën nañu jàpp ne yàqu na inna fi jasadi mudduxa isa saloxat saloxal jasadu kulluhu wa isa fasadat fasadal jasadu kulluhu loolu nag li muy teg kon mooy koo xamante ne bëgg nga juróom-ñaari cër yi la yàlla jox nga sàmm ko ba di ci def lu neex yàlla ba di ci def lu la amal njariñ yow jëmm yi nga nekkal yow mi def yàlla yi la nekkal da ngay fexe ba sa xol nga defar boo ko defaree rek ba mu baax mooy waral cër yi noo ko bëgg a jëfandikoo nga mën koo jëfandikoo noonu boo gisee mag ñi bu njëkk daara yi ñu ko daan séddale ci ñett maanaam daara ju ñuy jàngee alxuraan daara ju ñuy jàngalee xam-xam ak daara ju ñuy tarbiya ndax dañuy jàpp ne nit ki li ji li war a jiitu ci moom mooy mu jàng alxuraan mokkal ko waaye su ko mokkalee na dem jàng xam-xam ndax xam-xam boobu ci lay sukkandiku ba mën a jaamu yàlla waaye xam-xam dañuy wax ne théorie kese la bu ko nit ki xamee te te jëfandikoo ko du ko amal njariñ léegi nag nan lay def ba jëfandikoo ko mooy ñu defar defar defar koo xamante ne su ko jógee fu mu mën a dee dem dam dootul yàqu loolu nag li koy may nit ki mooy tarbiya daala tarbiya boo ca demee da nga fay fekk sëriñ boo xamante ne day xam jëmm ji ak li yàlla dajale ci moom ak li nga xamante ne moom moo nekk ay gàllankooram ba du gaaw a dem ci yàlla par exemple bu dee ku bëgg lekk ñu fay di ko xiifloo bu dee ku bëgg daraja ku fonk boppam ku naw boppam ñu jox ko spot di ko yalwanloo su dee koo xamante ne dafa bëgg fu mu toll di jataayu nit ñi di wax di commenter ko nangam ñu fexe ba di ko ber di ko wéetloo du gis ku mu waxal bu fekkente ne koo xamante ne dafa am problème mu jaamu yàlla la ñu jox ko ak naafila goo xamante ne guddi gu nekk da koy taxawee wala ñu jox ko wedd woo xamante ne chaque jour day wéet di ko wedd loolu mooy defar nit moo tax tarbiya dafa am solo nit ki saa buñ ko defaree rek ba jëmmam baax loolu mooy tax aw lamañam lu mu ci wax day baax ay noppam lu mu ci wax day baax lu mu ci déglu kon day day nekk aw yiw waaye ay tànkam fu muy dox jëm day nekk koo xamante ne fu yàlla gërëm la ay loxoom tam lu mu ciy def day nekk loo xamante ne lu yàlla gërëm la ah waaye tamit biiram lépp lu mu ciy dugal dina ko gëstu ba mu leer ko ne lii lu dagan la mu soog koo dugal ci biiram waaye ay bëtam itam lépp loo xamante ne lu mu ciy xool la day nekk loo xamante ne lu mu mën a jële yiwu yàlla la waaye du nekk loo xamante ne lu koy indil bàkkaar la wala lu ko mën a gàllankoor digganteem ak yàlla kon loolu daal mbokk yi lañ ne woon dinañ ko tënk xam na jataay bi ak waajtaay yi ni mu demee oo xaw a gàtt lool moo tax xam na duñ ci mën a duñ ci mën a yaatal genn yaatal bi ndax xañ na niñ ko war na waajale waajale wuñ ko noonu waaye nag comme suñu jëw yi da ko sàkku woon ci ñun te masal nañ ko fee taxawee moo tax bi ñu ko waxee tam jataay bi li muy diir bi li muy gàtt gàtt ñu ne rek dinañ ci waajal loo xamante ne bu ñu ñëwee xañ na buñ ko ko waxee lu mu gàtt gàtt rek mën naa am dees na ci mën naa am luñ ci jànge bu ñu ko jógee mën cee jariñ kon ñu ngi jégalu bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh